exactement mais quand même aujourd'hui est-ce que Ousmane mensonge deful erreur euh, par rapport à quoi le est-ce que exposé ou li nga xam nekk parce que nous voulons donner ko que ni Euh, mu daal di jóge si euh, entourage am ñoom El Malick Ndiaye ñoom Bassirou euh, parce que Mame Mbaye Niang aussi ñu bëri yàgg nañ ko ko wax waaye mu si yóbbu kenn si yoon Clédor Sène Birame Seck et tant d'autres et tant d'autres mm. est-ce que nekk loo xam ne see bëgg a ngoñ ko ni radiation bu bi doxul duma bëgg a jàpp si leneen exactement waaw loolu mooy loolu mooy li ñu wax rek mooy acharnement bi mais gis nga li nga wax noonu mooy mooy ni dañoo bëgg dañoo bëgg mooy si mooy mooy si mm. affaire bu Adji Sarr bi doxul affaire juste pour éliminer ko te est-ce que tamit oyoful torop mm. nga jël nit affaire diffamation article 31 la loi dafa n'empêche pas l'inscription sur les listes électorales mm. les condamnations mm. pour délit d'imprudence délit d'imprudence moi lan la moins imprudence moi bi ngay def dara si lolu lolu moom mooy loolu affaire diffamation diffamation bi délit d'imprudence la. waxna ko ci état bu la. dafa melni tay exemple ñuy wax ni rek la délit d'imprudence la wala man ñuy waxtaan nii rek wala ñuy xulo ma la ay délit d'imprudence la délit d'imprudence yo. mu ne code bi dafa ne lolu ken mënu ci nit ci liste électorale article 31 délit d'imprudence lolu limu xam nga Sonko da doon wax rek après mu jékki-jékki wax ni mi dañ ka épinglé si affaire product xam nga lolu wax na ko xat ko wa non lolu délit d'imprudence xam nga délit d'imprudence moy yow nga wax lo xam ne nekul nekul nekul djublu wosi won djublu ah, wosi pour pour gagner nit ki wala jubluwoo lolu moom mooy loolu wax ji non. pour ça ko pour que yok ci injure publique état d'autre état procureur bi bi mu yokkee injure publique. fan euh, la ñu génnee vidéo bi Sonko di injuré ma kii. Sonko ah. da ngaa mës a toog Sonko injuré nit. mës laa dégg benn vidéo bu Sonko injuré. moom mooy moom diffamation bi. non diffamation ak. injure injure non injure mooy waxal nit loo xam. non injure déedéet. injure mooy saaga nit. diffamation mooy nga mal nit. Mm-hmm. mooy nga yàq deram. diffamation mooy da ngaa yàq deram moom nee na dañoo yàq sama der parce que xam nga moo yàq sama der nit loolu du injure non du sa loolu du injure da ma loolu loolu c'est pas injure hmm. déedéet moom la loolu mooy diffamation mooy da ngaa yàq sama der yow hmm. sàcc nga hmm. su ma la nee yow sàcc nga public bi yëpp mën nañ jàpp ni yow sàcc nga mais loolu du injure publique non loolu du injure publique loolu du injure déedéet injure mooy saaga c'est très clair injure mooy saaga nit fan la ko saagaa amul fenn fu ko saagaa moom nee na da kaa diffamé te diffamation boo xoolee si article yi ñu wax bokkul si lii tax ñu génnee nit ki ci liste bi waaye tamit ñoom comme jàppoon nañu ni am nañu fenn fu ñu mën a ngoy pour ne kat kii bu mu bokk ci élection yi te xamuñu ni loi li ñu wax loi dafa sew loi dafa sew mais tey bu ñu toppee loi dëgg dëgg dëgg dëgg déformation bi condamnation bi mënul entacher candidature Sonko yota ñom xam nañ ko même même li nga ne moy pas xam nañ ko mais di di di manipuler nit ñi tax utiliser utiliser loi n'importe comment yow ya koy interpréter nous neex man interpréter fi dara lire li nga la article yi c'est très clair article amul fenn fu mu ne diffamation ba paré bu muy wax autre délit dafa né délit bo xamné dafa and ak amende délit bu and ak amende mais fi délit bi ànduloo ak amende dommage intérêt la andal alors la question moy Ahmed euh, le juge Abdourahmane Diouf a écarté li nga que muy justement peut-être. Euh, lu daal euh, contrainte par corps bi. Mhm. alors si toutefois Ousmane Sonko téye fu mu téye que ni du fay c'est 200 millions Mame Mbaye Ce n'est que ni su nekkee mënu koo fay dina deux ans de prison exactement alors euh, écarté nañ contrainte par corps bi Ousmane Sonko kenn mënutoo koo teg loxo juge bi mort écarté et que cette condamnation elle est définitive exactement alors. mais en ce qui concerne ces 200 millions ce su nekk Ousmane Sonko ba tey mënu ou fay wala kon préwul pour fay ko qu'est-ce qui s'en suit exactement ah mais loolu après dañuy xool dañuy xol la la su juriste di wax rek mooy que ni te bu fekkee Ousmane Sonko mënuñu ko mënuñu ko contraindre parce que xam nga mm-hmm. xam nga dafa am dafa yoo xam ne mm-hmm. c'est terre à mm-hmm. mooy wàllu diffamation nga xëy nga ne nit ki dañ ko siy condamné pour lan 200 millions. Mais des commentaires, commentaire diffamation 200 millions meurtre Ndiaga Diouf 20 millions. 20 millions mais loolu loolu c'est est c'est c' c'est loolu c' est sànq sànq que sànq doon wax entre parenthèses. Hmm. Moi, tey tey bu ñu nee bu ñu euh, condamnation définitive dañ la war dindi si liste pendant cinq ans kon kon ba Barthélémy Dias kon amul condamnation définitive Barthélémy Dias de condamnation définitive lañ ko coup mortel lañ wax. crime la coup coup mortel la délit non du crime mais délit la <laughs> xam nga délit la comme comme délit la rek amna am condamnation définitive ah. parce que article dafa né condamnation définitive kon normalement kon li dal Sonko mom da ka waron dal la motax ñoom acharné wu ñin si ne Sonko euh, Diaz mom dafa wara perdre li nga mom moy droit civique am fofu pendant pendant une durée parce que amu fa c'est pas c'est pas prévu loi yi waxuñu loolu hmm. légui nak ñoom bu ñu bëggé jël li nga xam ne mooy luwaay di leen tord nu leen neexee loolu tey tey tey dëkk bi tey mu yegg mooy dañuy jël luwaay leen tord nu leen neexee di toog ñoom si seeni plateau yi di di ko jéem a layal pour rek jéem a écarter benn nit te li ñuy def yëpp buñ koy def si benn nit kese lañ koy jëmale te xamuñu ne loi c'est impersonnel hmm. loi amul fii la far amul fële la far hmm. luwaa bi bis boo xasee ni loi bi dafay dal kii rek dafa war a dal ñëpp kon luwaa bi nañ jàpp ne xoola képp koo xam ne condamné nañ la pour diffamation kon su boobaa kon yow yow waroto nek électeur waroto sa nek candidat. mais Mame Mbaye Niang dafa waxoon pour seetal deram exactement mais yëf est-ce que demul bu ëpp ko doole c'est-à-dire dem bay euh, tox de li nga xam ne comment dire la candidature d'une personne ou bien même euh, statut civil am rek. ah non xam nga xam nga Mame Mbaye mom première fois bi euh, décision cour d'appel bi génnee. Hmm. biñ koy biñ koy njëkk condamné deux mois moom dafa waxoon mom kontaan na. Hmm. ndax mom seetal nañ ko léegi seetal nañ ko moy lan mom kon mom satchul lolou la wax man man satchuma ndax lolou lañ ma seetal ba paré nak fofu la fi waron yam fofu la war yëf yi waroon yam mais mais comme dañoo bëgg def affaire politique hmm. bëgg éliminer nit motax si saa si dañoo def si même jour bi hmm. dañoo def conférence de presse mu togat né non damay defaat appel ba paré sax procureur sax day def appel procureur bu muy def appel né na sonko mo nangul mo nangul lan Euh, moom moo nangul ba tey di insister là dessus moo tax muy toppee fii ba mu. déedéet déedéet moom moom bu mu lijjanti Sonko. Hmm. moom biñ ko joxee xoola moom bu fekkoon dafa waxoon ni dafa doon topp boppam. Hmm. moom biñ ko joxee dëgg rek. Hmm. même buñ ko woowoon nee ko ay eh, sëñ bi yow kat jox nañ la dëgg waaye ngi kii dañ kaa bëgg éliminer xam nga la la waroon wax. man wax dëgg fa yàlla man jug ma pour éliminer diw. boo leen bëggee ngeen def ko mais man defuma benn appel. si dëgg bu fekkee si dëggam lay wax. Mm. loolu la waroon def. Ah, mais nag moom dafa dafa ñëw ànd ak gars yi. Mm. comme ñoom ñoo ànd. Mm. ñu ne ñun nañ fexe ñun nañ ko nañ ko éliminer.

53 euh, nous leen daal à ajourné. y compris Ousmane Sonko est-ce que votre euh, examen examen a peut-être fait le bon choix MRDS. c'est que l'examen, bi examen le régime bi je suis moo moom moo nekkul examen bu bu <laughs> parce que dès le que yow nga teg nga teg nga teg benn examen ba pare nga ñëw épreuve. nga ne yow Fall yow épreuve bii laa lay jox yow mm. yow yow jëlal un plus un mm. yow yow Ahmad yow maa ngi lay jox yow jëlal équation à deux inconnus kële yow moom maa ngi lay jox yow defal géométrie nga jël examen boo xam ñu ñëpp ñoo bokk même matière bi ñuy def mais ku nekk yaa ngi ko jox benn exercice loolu moom moo fi nekk looloo looloo waral looloo waral rëkkale yeeg ñi ñi ñi jàll ñii kii mm. bon ñun suñu coalition euh, ba léegi ñun ñoo ngi ñoo ngi woy di dérouler nga xam moom la ñu war a dérouler parce que si biir si biir coalition bi ku mel ni Abdourahmane euh, Cheikh Tidiane Dieye si coalition bi la bokk euh, ki nga xam ne moom lañu moom moom moom la dossier euh, nekk en essence muy Bassirou Diomaye Faye si coalition bi la bokk Sonko aussi si coalition bi la bokk Habib Sy si coalition bi la bokk donc ñun coalition bi ñoo ngi liggéey pour lan projet bi nga xam ne moom lañ bëgg tëral mu aboutir moo tax ñoom dañoo focaliser wu si seen mbir yëpp si Sonko. Hmm. moo tax ñu bàyyi leen ak Sonko xam nga tey tey exemple tey. Hmm. Euh, gars yi bu ñu demee di di football comme comme yenn yenn équipe yi bu ñu xamee ni am na benn joueur boo xam ne moom moo gën a. fës dëgër déterminant. xam nga joueur équipe bi dañ naan nañ nañ nañ focaliser si kooku. parce que hmm. kooku fekk buñ ko téyee rek ñeneen ñi dañ leen téye léegi nag entraîneur bu xarañ xam nga la lay def da lay ñamal da lay jox joueur boobu ngeen focaliser si ñooñu mu dem uti beneen joker. kooku ñoo rey leen loolu moom mooy. donc Sonko mun na nekk un roi comme un faiseur de roi. kese fi mu toll nii fi mu toll mais le choix de Cheikh Tidiane Dièye est-ce que du gën a peut-être apprécié jeunes yi que euh, le choix euh, bis bu leen ko décidé daal di koy porté si ki na xam ne que moo di Habib Sy. waaw bon man man personnellement man laay wax. Mm. man en tant que Ahmed Sylla mm. waxuma ko ci sama turu coalition. Mm. waxuma ko man si sama turu parti. mais man en tant que Ahmed Sylla sama xalaat man sama xalaat. ñu lay man wax dëgg fa yàlla <laughs> man dama jàpp ni Habib si ba léegi man. continuation wu libéraux li ya libéraux yi kese la xam nga Abdoulaye Wade dafa waxoon ni nañu na ñun libéraux yi nañu fexe toog fi pendant cinquante ans. Euh, Habib Sy du si du si PDS la jógee. ah mais yéen